dal leen ak jàmm yéen ñi nga xamante ne nii yéen a safoo di seetaan seen bii di Allô Sénégal ñu dikkateeg yéen ci xibaaru yees bokk na si li gën a marqué toile bi di Billy ak ki nga xamante ne nii mooy Marichou Billy ñu gën koo xam ci turam dëgg Khadim seen Marichou ñu gën koo xam ci Mariétou jóg ñoom ñaar marqué loolu toile bi bu ñu sukkandikoo si sunu naataango yooyu nga xamante ne nii ñoom lañ naan waa Sene News ñoo def benn pub boo xamante ne nii génn nañ def révélation comme quoi que ni Marichou dafa toll diggante waaye boobule révélation jotoon naa génn ci turu ki nga xamante ne nii moom lañ naan Tange Tandian d'ailleurs ci benn vidéo sax la Tange expliqué woon comme quoi que ni am na benn acteur boo xamante nii bu siiw la bu célèbre lool bu turam commencé par B bu biiral benn actrice boo xamante ne nii turam commencé na par M boobu nag. kumpala woon loolu pour ñu xam kan la woon emm maanaam emm jaaxaloon nañ ñu lool parce que Marodi buñ ko saytoo amoon na fa ñaari emm tey nag liy xew day jox dëgg rek kii nga xamante ne nii mooy Tange Tandian ci bam ñu junj ci B ak M comme que junj doon na borom xel Allô Sénégal day ko ba ci kanam pour mu gën a mën a yëy yàbbi ci li nga xamante ne nii mooy xew xew Marichou bi ak kii nga xamante ne nii moom lañ naan Billy nees tuuti ñu dikk ak yéen seen jàngat turam dëgg ñu gën koo xam ci euh, Khadim Sène Béli ñu gis ko ci série bi nga xamante ne nii moom lañ naan Pod et Marichou ñu delluwaat ko di ko gis aussi ci série bi nga xamante ne nii moom lañ naan Infidèle Béli ñu gën ko ràññee ci image boo xamante ni nii tey euh, ku calme la ku ku noppi la d'après ci ay jeunes euh, ñu gis aussi tamit ko am fulla la trop ci ni muy joué. parce que bu ñu gisee euh, série yi nga xamante ne nii moom maa ngi caa fulla ak fayda ga sa nekk euh, kenn dootu ko naatable euh, li wane di gën a dëggal fulla ak faydaam googu mooy que ni am na soxna ba wàcc ko fële ca Suisse maanaam kon loolu rek déjà responsabilité la mais dañuy laaj rek boobu responsabilité ku ko am. est-ce que di nga doxalee yenn yi est-ce que war na la war na ngay doxalee yenn yi loolu euh, euh, benn interrogation la boo xamante ne nii xam naa ku nekk yaa ngi koy posé yaa ngi koy posé wu sa bopp parce que bu ñu gisee Billy euh, mii nekk nekkoon Touba doon fa jàng alxuraan mu jékki-jékk génn jóge Touba ñëw fi nga xamante ne nii mooy Dakar pour àggale pour def fi def amal fi ay activité am activité am bokkoon na si li nga xamante ne nii mooy art théâtral tey bu ñuy dégg benn billi boo xamante ni dafay dafa nekk di def naka su noonu alors que image bi nga xamante ni moom la moom moom la wan moom la exposé ci ci bëtu sénégalais yi ndurawul loolu tey dañuy toog laaj question euh, lan moo xew dëggantaan lan moo xew réellement euh, ak kii nga xamante ni mooy Marichou aussi tamit ñu ko doon dégg ci ay ay problèmes yu bari ñu ko doon dégg ci ay problèmes yu bari dernièrement euh, am na fi problème bu fi amoon ci diggante naa Baldé ak ki nga xamante ne nii mooy. di euh, Bril Fayfo euh, moom euh, Marichou ñu gën koo xam aussi tamit ci Mariétou Diop moom njóobeen boobu tey gis nañ ko aussi tamit ci ci série bi nga xamante ne nii nekkoon na fa doon fa joué muy Pod et Marichou ñu gisoon benn Marichou boo xamante ne nii tey mun ñu ko dëkkal foo xamante ne nii dina dina dina doy waar loolu parce que bu ñu gisee post bi nga xamante ni defoon na ko ci Facebook bi. d'après bi nga xamante ne ni euh, Dieyna Baldé génnoon na euh, doon wax ci euh, ci côté am ak ki nga xamante ne ni mooy Bril Fayfo moom démontré na euh, position wane na carrément ni laalewul ci yooyu yëpp te moom xamal na fansam yi ni li leen euh, moom euh, ku am fulla ak fayda la parce que ci loolu lañ ko yaree ay valeurs yi la yoo xamante ne nii moom nee na yaayam moo def ci moom tey moom amul amul droit di di def naka su dul noonu amul droit di wane beneen image boo xamante ne nii du fulla ak fayda rek képp donc moom moo cay moo cay nekk Euh, loolu tax nag ñun dañuy poser question parce que euh, ñaari nit euh, bu fekkee kenn ki jàng na alxuraan ba xam li yàlla wax kenn ki nekkoon na Touba nekkoon na ci daara bu génn kooku est-ce que dina daje koo xamante ne nii moom it ku am fulla ak fayda la ku xam lu muy def la te ñoom ñaar bu leen buñ leen boolee bu leen boolee buñ leen jëlee ñoom ñaar est-ce war nañ faa teg. loo xamante ne nii seen diggante day day ñaaw parce que bu fekkoon kenn ki dafa am dafa jàdd yoon kenn ki euh, correct laa mën nañoo comprendre euh, mbir mi ni mu demee mais ñoom ñaar ku si nekk da nga am benn jaar-jaar boo xamante ne nii tey xëy na dina la marqué loolu loolu ba tax na doo def yenn yi parce que dañuy wax souvent rek ni jaar-jaar mooy nit maanaam nit tey bu amul jaar-jaar pour mu nite day jafe. léegi le fait que nga am jaar-jaar rek war na la di guider à chaque fois di la wan yoon bu baax a baax a baax ba nga xamante ne nii fépp fooy teg sa tànk rek di nga xam bu baax a baax lan moo fa nekk ak tamit boo yëkkatee sa tànk lan mooy xew ba tax na dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne nii euh, ku yàggu di moytu parce que euh, ñi la bëgg ak ñi la bañ doo leen xàmmee maanaam xàmmeetuñu ñi la bëgg ak ñi la bañ dañu nekk ci boobu la dëkk. dañoo nekk ci toll ci jamono joo xamante ne nii tey euh, mënoo ràññee euh, ñii ñoo baax ci man ak ñii ñoo bon ci man wala ñële ñoo tane ci man donc yooyu yëpp buñ ko xoolee bu baax baax képp koo xamante nii rek euh, en dehors dax nga nekk artiste war nga xool bu baax man sama doxalin nan la war a demee fan laa war a teg sama tànk surtout ci lan lañ ma war di gisee ci lan lañ ma war di xoolee parce que bu ñu gisee bili euh, Saint-Valentin yi passé euh, moo ki nga xam benn rapport bi nga xamante nii moom lañ naan Black Queen tey ñu déggaat wax ji mu wax ji am tey suñu xel day gën day gën a lëndëm suñu xel day gën a lëndëm parce que sénégalais dafa soxla euh, ñu koy wan ñuy gis waaw dafa soxla ñu koy wan ñuy gis te yooyu ñuy dajale yëpp di ko gis te bu yàggee du ñu gëm lu dul loolu que loolu lañu am comme preuve yu ñu mën a te su pour ñun ndax yaakaar nañ ni moytu dafa war ku ne moytu ñi mu gën a war sax bokk la si ñi nga xamante ne nii chaque jour ñu ngi leen di séen chaque jour ñu ngi leen di gis bu ñu naan chaque jour ñu ngi leen di séen wala ñu leen di gis chaque jour dañ naan chaque jour bu ñu taalee télé bi leen di gis wala bu ñu taalee rajo dinañ leen dégg wala bu ñu rombee ci mbedd dañ dégg ñu leen di waxtaanee. ñooñu ay borom tur lañ léegi bu fekkee da nga nekk koo xamante ne nii borom tur nga yow yaa war a gën maytu moytu fuuf ñi nga xamante ne nii tey ñoom ñoom euh, feeñ ñu fenn ñoom dégguñu leen fenn parce que yow da nga war a xam ne à chaque fois chaque instant chaque moment rek ñu ñuy wax ci yow léegi wax jooju ñu wax ci yow da nga war a di ñaan yàlla heure bu ñuy wax ci yow wax ji doon wax ju baax wax joo xamante ne nii tey bu dégg bu ko sa njaboot déggee du ñu am lu leen metti fii ñu bari ñu ngi am njaboot nekk fi ay artistes wala nekk fi ay ay ay ay ñoo xamante ne ni euh, ñu am ñu am célébrité lañ mais seen njaboot kontaan nañu seen njaboot du ñu kontaan parce que li ñuy dégg ñu koy teg seen deru waajur yi du day du ñaaw loolu loolu lu jarameetu la lu jara di sóoraale la à chaque fois bu ma waree def dara ma xool bu baax a baax nii naka laa ko war a defee parce que nekk artiste c'est bien nekk artiste baax na nga nekk di jouer baax na mais jeu boobu noonu après boo ci jugee est-ce que da nga war a continuer di jouer wala da nga war a solaat sa mbubb bi nga xamante ne nii moom la ñëpp xamee wala boog mbubb boo xamante ne nii tey boo ko solee leer na la ni la mbubb bi du amul benn taas. maanaam mbubb bu set la mbubb boo xamante ne nii bu ñu paasee la ba mu taal yi de telle sorte que képp ku la seen rek dina xamante ne nii euh, yow mii gàtte ko correct nga après jeu bi moom ko correct nga parce que ginnaaw bi ñu defee jàngat bi ñu defoon rek ci ki nga xamante ne nii mooy Soxna Batoor ci jeu boobu nga xamante ne nii mu ngi koy joué famille sénégalaise sénégalais yi ñu ngi koy wax lu nekk ñu ngi koy wax lu nekk mais loolu jeu la loolu bokkul loolu jeu ci jeu la mën a yem. mais mënul jéggi frontière jeu soxna Bator bu xëy na boo ko fekkoon seen kër wala nga fekk ko si mbedd mi nii amul boobu melokaan mais loolu day jàngale li nga xamante ne nii moo xew ci kër yi ba tax na loolu waruñu ko jël di ko jël di ko def mbubb mu ñuy sol tout le temps muy Billy muy ki nga xamante ne nii muy Marichou ñoom ñaar nekk nañ fi ay icônes yoo xamante ne nii tey. waruñu di leen dégg ci yenn yi warul ñu leen ni warul ñu leen ni warul ñu ci yenn yi aussi parce que ni mu demee nii tey euh, doon na loo xamante ne nii ñun ñëpp nañ ci am surprise man ni ma ci amee surprise yow mi seetaan di déglu noonu nga ciy amee surprise parce que xalaatoo woon ni Marichou dina wàcc ba ci niveau bii xalaatu woon ni Billy dina wàcc ba ci niveau bii ñoom ñoo wàcc ba ci niveau bii walla dañ leen see wàcce en tout cas information bi nga xamante ne nii mi ngi daw comme quoi que ni Marichou dafa toll diggante ñun ñu ngi koy topp équipe Allô Sénégal bi yëpp ñu ngi ci taxaw pour mën a am leerlu ci li nga xamante ne nii mooy. information bi génn parce que aloo Sénégal li ko ñor mooy information boo xamante ni dafa clair dafa net teg lay topp ba tax na tey bu ñu xoolee euh, li nga xamante ne nii mooy euh, Pod et Marichou ñu mu demee tey ñoom ñaar ñoo fa nekkoon ca série ba loolu mënuñu mënuñu ko miim mënuñu leen a weddil tamit parce que ña nga ci maison de production boobu noonu xamuñu woon lan moo fa xew xamuñu woon tamit naka lañ amele seen relation ñoom ñaar mu doon loo xamante ne nii nag euh, lu ñu war a toog defaat attention bu baax a baax la parce que dëgg la ni wan nañu image yoo xamante ne nii tey euh, ñu neex a nangul lañ image yoo xamante ne nii euh, mën leen a jàpp tee leen image yoo xamante ne nii original nañ ci forme bi nga xamante nii moom lañ ñu ko wanee parce que kii bu taxawee euh, joué fi nga xamante ne nii mooy euh, Pod et Marichou di Billy ñëwaat joué infidèle euh, ñu gis fulla ak fayda ci moom Marichou aussi tamit ñu koy gis aussi di ko suivre bu baax di gis tamit ni moom dégagement fulla ak fayda mi ngi ci moom mais tey lan moo xew est-ce que du jumte parce que comme que dañ naan jumte du wees te jumte moom à chaque fois mën na dal sa kaw xëy na mën nañ koo classé ci côté jumte mais yenn jumte yi dafa am ñoo xamante ne nii waru leen parce que yaakaar naa jumte boo xamante ne nii mën nga koo mun nga retenir sa bopp jumte boo xamante nii mën nga téye sa bopp étant donné que ni sax da nga am soxna ba nekk Suisse te yow war nga xool wala xalaat sa jabar ak say doom bu dee am nga ko nga xalaat leen ba yenn yi sax doo ko def buñ naan jumte loolu daal bokk na ci li nga xamante ne nii tey euh, jaaxal na ñu bari parce que bu ñuy dégg yenn yi ñun buñ ko mën a rafetlu parce que am na yoo xamante ne nii mën na ternir sa image même bu fekkee sax du dëgg parce que sénégalais dañuy toog di la xool à chaque fois ñu lay suivre moo tax si si si noonu ñu lay suivre noonu. yow yow mi ñuy suivre da def attention bu baax a baax bu nga def benn erreur bu ndaw parce que publication yi ngay def Facebook yi ngay def Instagram. Instagram TikTok et autres gars yi yëpp dañ koy dajale buñ ko dajalee nag di xaar ba nga def benn affaire rek ñu génn wan la wane la ci face wane la ci côté bu nekk léegi bu la wane ci côté bu nekk nag. yow amatoo preuve amato lay ndax jàpp nañ ni nga doon star warula pousser sax ci nga nekk ci réseaux sociaux yi tout le temps 24 heures sur 24 ngay publier ay photo ngay def loo xamante ni naka si du noonu wala nga def ay post yoo xamante ni tey mën na mën na def suñu xel euh, loo xamante ni bu xewee tey jii nii rek dinañ mën a jàpp ni euh, noonu la demee parce que tàmm nga wala yàgg nga di def genre post yoo xamante ni nii tey euh, suñu xel mën na cee daj mën na cee daj maanaam ba ñu jàpp ni lii ñu lay tuumaal ñi tey dëgg la moo tax dafa mat a sóoraale bu baax a baax a baax lépp loo xamante ne nii euh, nit ki tey mi ngi koy def muy post ci Facebook ak euh, ci côté bépp parce que bu ñu xoolee euh, tey bu ñu gisee information yi génnoon tay la si ginnaaw ci côté président Macky Sall bi nga xamante ne nii moom post yi muy def lu si ëpp dañ naan day def ay day présenter ay condoléances ay condoléances rek lay présenter ay condoléances maanaam ay jaale rek lay présenter tey naka lañ def ba xam. loolu parce que dañoo gis ni à chaque fois moom lay moom lay def moom lay def moom lay def ñu dem ba jàpp ni loolu la kon loolu la noonu la demee ak ci beneen côté ci bépp côté noonu la demee tey bu ñu lay suivre rek da war a xam ne ñu ngi lay suivre ba ngay def variation variation dafa baax tey boo defee lii subaa defal leneen voilà loolu day day day fël xelu sénégalais yi day fël xelu ñëpp sax laay wax maanaam day tax xel nit ki du posté wu ci benn côté rek secteur rek di la xaar ci côté boobu noonu rek ñu di xaar ci côté yëpp ba nga xamante ni tey bu dara xewee rek dinañ mën a dinañ mën a ni noo demeewul nii nii la demee mais tey euh, amaana bu lii amee ñun duñu mën a duñu mën a xam fan la dëgg féete dëggantaan lii tey moo doonoon li nga xamante ne nii war nañ leen koo dëgmal comme jàngatu tey bi euh, ñuy ñaan rek ngeen gën ñu di suivre di abonné tey partager saa su ne ñii gis ni safoo ngeen euh, seen bi bu baax a baax a baax ñu ngi leen ñaan ngeen gën ñu di topp parce que information boo xamante ne nii dafay leer ci bët euh, neex a dégg ci nopp fii dong nga ko mën a amee fii dong nga ko mën di déggoo ñuy ñaan jàmm ci réew mi di ñaan ci xol yi di ko ñaan aussi ci xel yi bu baax a baax a baax Sénégal, allons vos besoins.